gaay <laughs> tey moom du mu nuyoo waaw tey dama kontaan dama yi aimé leen leen like leen gaay yi partagé leen vidéo bi gis nga de <laughs> ca àdduna àddunaa ngi nii gaay yi Bamba Dieng gis ngeen bii bu mu dugal tey Bamba Dieng moo dugal bii bu amul fenn loolu doyit mu passé wax ji jeex na fay na lépp ñi doon rëy làmmiñ marché yi ñàkku ngor yi nga xam ne si nii dañ doon toog di critiquer booy bi di ko wax ay wax yu ñaaw lu nekk lu nekk tey tëj na seen gémmiñ lii mooy esprit gaynde gaynde dëgg buñ koy wax lii moo tax gaynde dëgg lii moo tax comme ni koy eh, sama waa ji di waxee eh, Grégoire doomu gaynde Njaay du tiit waaye du ragal gars yi tey dama kontaan ci biir bu mu dugal waaye lu muy gën a kontaanee muy joxewaat lii mooy ñeex ba pare ñeexal la affaire bi neex na affaire bi neex na trop trop trop trop trop trop di wane ne lii la rek lii la rek tubaab yi pendant que ñu nekk fii di la critiquer di la wax dara gaynde lii ci football la bokk critiquer ci football la bokk dëgg la nag neexuñu ñun suñ amee dara dara lu laal suñu gaynde rek dañu gis suñu bopp xam nga rek esprit sénégalais donc gars yi gis ngeen bii bu rëy bi nga xam ne tey jii moom la Bamba dugal mu nekk bii boo xam ne am na important trop trop trop trop ci Marseille waaye tamit bii boo xam ne changé waat na lu bëree bare bare bëri fële sa Marseille tey instant bii ma la wax ni journaux yëpp yëpp yëpp yëpp moom la ñuy reprendre France Gep gep gep ci Bamba Dien la wax ak supporters Marseille niñ mel xam nañ ko Marseille niñ mel gis ngeen ko donc gars di encore ci yena ah, di bëggee ci support yi ngeen di def di ci bëgg gi ngeen bëgg Bamba Bamba Dieng vous di leen wax ni ni la dañuy continuer diko seddo ngeen continuer di information yi ñëw joxe gars like leen partager leen ñu toj merci beaucoup merci beaucoup doomu gaynde njaay du tiit du ragal di bëggee Grégoire Grégoire ñu ngi lay bëggee lu bëree bëree bëree bëri